alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf dégg nañ kàddu yu baax man dégg nañ man am na nas bu baax nas bi leer nañ fa tabaraka allah nas bi rek ñii rek a fa fa mu tàmbalee ba fi mu agsi fa mu tàmbalee baax ba ci sëriñ bi seen nas bi bàyyi fi dara nas ngeen lépp noonu rek la fa tabarakallah amul dara lu ci jàngat amul dara lu ci des sant nag rek moom lan am may ñëw ñetti xaaj rek laa ko def tudd magum suñu borom bi allahu akbar sant ko ci boole gi ñu boole sëriñ bi sant sëriñ bi ci tëfal ju rëy am ci moom ñett yooyu ñetti baat yooyu laa doon wax allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf fekk na ak alxadim ñett yaay ñaar baat yi moom laa doon wax te moom dañu maa gisee loolu rek laa leen di tontu nag seen seen taxawaay bi wax dëgg taxawaay bi taxawaay bi tabaarakallah ko daal ci cosaan la ba fi ba ba ci sëriñ bi nasi ngeen ko nasi mu rafet dara desut fa tabaarakallah jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant gën a sant suñu borom mi leen bind te boole ñu sëriñ di leen gën a sant sëriñ bi mi suñu lépp tey ak ëllëg di leen gën a sant seen taxawaay seen yitte seen yéene seen pësteef seen bëgg seen cofeel ñoo ngi leen di sant di gërëm bu baax ndax loolu yàlla leen ko defal waaye yéene ko jëfee ba mat sëkk jërë jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf noo ngi ye noo ngi leen di seeral yeesal suñu suñu yeesal suñu jaayante sëriñ bi noo gënoon noyyi noo ngi leen koy seeral di leen yeesal di leen seeral ne waxtu bu ne noo ngi fas yéene fenn suñu laxasaay fas yéene sax tàkk ci jaamu yàlla lëggee lëggee lëggee ko sëriñ bi ànd ko yéen jaamu yàlla. liggéeyee na ko sëriñ bi boole ko ci la la la ma dese ci jaamu yàlla te sunu bàyyee ñu ko nu boole nu boole jaamu yàlla gi nga xam ne moo nu feen gi lanu ca dese ci lu baax lépp nu fasal ci sëriñ bi boole jaamu yàlla gi ak jëf jë liggéey ba dana ci am lépp nu nu nu nu nu jébbalaat ko ko loolu mooy nu sax dàkk ci jaamu yàlla ndax moo nu fenn waaye nu fasal ci sëriñ bi defal ko ko murub liggéeyam boole ko lan dese woon nga xam ne suñ yàlla nu tawfeex yàlla nu dimbali ba mën koo def ci lu baax ak lu mu mën a doon nu boole lépp jébbal sëriñ bi doy lu sëkk suñu digganteeg suñu borom. ci biir ak ci biti tey àggal nun ñaari ci ñaari diggante rek la nekk ci ñaari diggante rek la nekk muy wéetal yàlla wéetal yàlla mooy def mooy dindi da ca dolliku mooy dooloo sëñ bi digg ma boromam day noonu sëkk day noonu sëkk bu dee ci saayir bu dee ci waayir lu ma ta faggu faggul nañu ko tey ak ëllëg lu ma ta lu mën lu ma ta ñaanal ñaanal nañu ko te juwóoni sax boromam kon dara di si lu dul sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéey la ko sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf noo ngi sant bu baax a baax a baax di leen bu baax a baax ndax lu nu bëggoon lu nu yéene fekk nañ ko ci yéen lu lu lu lu lii may wax li ma ci xam ak li ma ci yéene ak li ma ci bëgg lépp fekk nañ ko ci yéen fekk naa ko ci yéen kon kon noo gënu nooyi yàlla yàlla na suñu moom gën a dooleel suñu tawfeex sëriñ bi yàlla na sëriñ bi gën a gën a gën a gën a gàttanul boppam yàlla na sëriñ bi gën a wombatal boppam te gasal noonu ngërëm moom tey ak ëllëg loolu rek mooy wax mooy ñaan jërë ngeen jëf kon naa ko yemale foofu jërë ngeen jëf waaw sant nañ nan sant nan sant rek nan sant rek sa sax dàkk diggante sant ak soññ suñu bopp daayima sant sax dàkk ci sant ak soññ suñu bopp daayima ñaar diggante de diggante yu jëkk ya mooy wéetal yàlla doylu sëriñ bi ya tegu mooy sax dàkk ci sant tey sax dàkk soñ soññ suñu bopp sa soñ soñ bopp jërë ngeen jëf lu ñu toll wal tudxil alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xad saxani liwatani bi nafa ma fani